jomaay doxal ko yëkkati loxoom naan maa ko doxal ak lu mu ci mën doon xam ñun la lañ bëgg mooy ñoom ñi ñu fal ñu liggéey jàpp naa ne ku ñu wax ne ko yaay premier ministre yaay chef de gouvernement dañ laa far pour nga gouverner dañ laa far pour nga liggéey léegi nag bu fekkent ne dañoo bëgg am la ñu amoon premier ministre bi làqutu ci ginnaaw président buy wax dara sax balaa balaa wax ji ñi mu wut a wax te du wax ne ni ko président waxe eh, léegi ñii itam dañoo ñëw ak seen façon doxalin woo xamante ne bokkut ak doxalin ya nga xam ne moo amoon mm-hmm. beneen bi ci des Euh, ñuy ànd te ne ñoom dañoo fas yéenee ànd seenub ànd mooy ànd doon benn euh, ba xale yi sax wax ne jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay mm-hmm. ñu ànd ne dañoo war a liggéeye noonu mag mu bëgg a defar du wax lu leen di tàqale du wax mukk ne euh, diw daa confiné diw wala diw daa muur diw wala diw nangam ndax loolu coppet ci bii ndonki bii lay tekki Eh, ci rawat na ñoo xamante ne seen taxawaay ku mel ne sëñ Alioune Tine maa ngi koy nuyu ci àdduna bi yëpp li ngeen xamee woon mooy dox jàmm mhm. dox luy indi stabilité mhm. dox luy indi nangam te jàpp ma ne fii ci Sénégal actuellement nii mhm. lu wuuteeg jàmm am na fi man dama doon xaar Alioune ne jomaay daa bëgg a def dara Sonko tere ko ko wala ñoom ñaar dañuy xuloo wala ñoom ñaar dañoo war a liggéey mënuñoo liggéey wala ñoom ni ñu ànd neexu leen wala ña ngay reyante ci seen biir ñu ñu dem seeti ko ne ko suñu àllin yow kat fu fu jafe-jafe masa am da ngaa bokk ci ñuy indi jàmm génnal nga indi jàmm ci waaye ñaar ñu ànd dem campagne wala boog sax kii moo waroon ne candidat ay ndog ndog dal ko mu tànn koo xamante ne da koo def na rakam hmm. wóolu ko ba tànn ko ne ko yow laa tànn sénégalais yi fal ko e, fal président Bassirou Diomaye Faye mooy président de la république lu mu defal Ousmane Sonko da ko caa sédd waaye moom bu fekkonte ne danaan kii rek danaan man lañ fal waaye mu tànn ko ne ko kaay ñu liggéey ñu ànd ñoom ñaar di liggéey te xarabante wuñ waxanteeguñ lu ñaaw ku génn nag ku man di doon naan kii dañ koo confiné kii daa muur kii ak kii mënta def kii ak nii kii doxalutit jooju wax moom jàpp ma ne defar moo ko tax a damay jàpp ne da nga jàpp ne moom kàddoom yooyu en tout cas wax jooju defar taxu koo jóg man daal bu waxoon ne daa war a ñu fi daa war a dox te doxut kon ñun sénégalais yi danañ li war a dox ki ko war a doxal na ko doxal waaye Sonko mooy doxal jomaay dañ koo confiné xam nga ñun Sénégal yi lan lañ bëgg mooy na yëf dox rek eh, na gouvernement bi liggéey li ñu war a def nañ ko def lañ déggoo ñoom ñaar ba di ko def yàlla na doon ngëneelul senegal doon njariñul Sénégal ci lool lañ leen di xaar mais xaaruñu leen ci léegi